vi dal leen ak jàmm ci xibaar li ci jot fes dañ koy doxeek élection législative yi ñëw ba pare nag te li nga xamante ne si moom moo di ba Bassirou Diomaye Diakhar fay jàpp ko le set le 17 boobu nag mu ko jàpp nag ki nga xamante ne si nag ñoom ñoo di ak ki nga xamante si nag moom moo di euh, waa opposition bi surtout waa coalition bi nga xam moo di waa ATEL ñoom nag d'accorduñ ci benn yoon ndax la set euh, bi nga xamante ne si nag jàpp nañ ko ci te moom euh, président la njiitum réew bi joxewul nag benn date pour rek pour waxtaan rek am avant ñu jàpp li nga xam moo di élection yi ba tax na ki nga xamante si nag moo di njiitum réew mi rek loolu ñi nga xam di opposition bi ñoom nag dañ ci d'accorduñ ci benn yoon mu nekk nag loo xamante ne si ne nag ñoom naqar nañ ko bu baax a baax a baax eh, njiitum réew mi jàpp eh, élection eh, te ñoom waxtaanuñ ci ak benn yoon moo tax nag ci loolu waa opposition bi rek ñu ci bari taxaw rek bëgg doon benn rek pour rek amal li nga xam moo di seen coalition bu takku pour rek li nga xamante ne si nag moom moo di élection législative yi nga xamante si nag moom la ñuy amal ci li nga xam moo di weexum euh, novembre 17 novembre mu nekk nag loo xam si nag sénégalais yëpp rek ñoo koy xaar euh, bu baax a baax a baax